commerçants, industriels. Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur CETADAKAR.COM pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise. Contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde.

à se déplacer normalement, on n'arrive pas à faire notre boulot normalement. on n'arrive pas même pas à manger normalement. suñu bunt gor lay tok mais xeer yi dañu fi fekk léeg-léeg lacrymogène yi doy dugg suñu gër. saxaar si day dugg ci ñun dina sonal. sañu yaay dañu dañoo fuñ fu ñu toll sañu papa yi feebar xalé yu ndaw yi dañuy feebar sax ñu sëqat sax du ñu yóbbu leen hôpital ñu ne sonn nañu. gis nga ni suñu njaboot gi lacrymogène ñoom mënuñu ko supporter waaw sama sët la ni dama demoon ni jëli ko ca yaayam pour jéem ko protéger ci kàntanu yalla dal wa xam nga seut mom dafa neex bu affaire bi commencé rek damay daw jëli ko ndax yaayam xale la motax nañu nan nak ngir yalla ak yonent bi yëf yi dal yenn ci yalla wiss sedd dal la fois passée bi sané affaire dafa dugg suñu biir kër vraiment bima ma sama yaay ma nga gis mu jël col bi taf ko ni ci kanamam ah bon mu nek lo xamni ni dafa dafa daw yaram te dafa metti dafa metti trop trop trop trop trop trop. on peut même pas arriver à vendre. Voilà, on, on ferme nos boutiques, nos magasins. Même euh, il y a euh, une fois, on a lancé une bombe lacrymogène dans le magasin et ça a endommagé un télé. lu ne pour lu ne ñoo ngi ko fi taal ñu ñoo sonn. ñun dañu am ay bébé yu nekk ci biir kër gi kër yi am ay mère yu nekk ci kër yi am ay paa yu nekk ci kër yi yaa ngi bu bu ñu dàqee ay nit sax ñu dugg sa kër au lieu que ñu xaar lañ ci biti mais day jël ay lacrymogène sanni ko sa biir kër pour ñooñu étouffé mëna a génn ñu jàpp leen mais ñun ñu nekk suñu biir kër lan lañ jotté ak loolu de sonn nañ nañ ñu dimbali. la fois passée ils l'ont jeté à 8h30 alors qu'il y avait une famille qui qui qui qui, qui se trouvait et, et euh, dans la cour euh, pour euh, pour pour manger le dîner et ils ont jeté un lacrymogène dans le repas même. Donc c'est des choses vraiment qui sont, qui sont difficiles à vivre, qui sont inacceptables. D'ailleurs, manifestation bi fi mujjee am euh, mooy bi élément wu policier bi di euh, bi ñuy rey fii Colobane fii ci biir euh, après bi ñu ci paree loolu dañu dellu si jël juróomi xale yoo xam ne ci même koñ bi leen dëkk yóbbu leen. vendredi passé jàpp na jàpp ay 5 boy kolobaan yo xam ne fekkewuñu defuñu dara moy crime bi amone xaw ben jemi gémi rayon ñu Fodé un certain Fodé man fekkewu ma ko woon sax xaw quoi mais yóbbu nañ suñu cinq euh, dëkkandoo yoo yo ne kolobaan fi la nek quoi yobuna len bon sans preuve sans dara yobuna len leen len mandat dépôt. sama rak bi instant bi mo ngi jël sa maître muna wa wax la parce que si famille bi la ko en même temps mo takk sama rakk ñun suñu kër amna ko xamanteni ni ben xalé bu jigen bu fi dekk suñu dekkando la bu yag jëkkëram kéro bi problème bi am mi ngi tedd ci lalam yegul tinul ñu jël ko yobbu ko sama frère bi ñuy wax Cheikh Cissé aussi ñu japp ko ci affaire yi fii la juddo ñun ñëpp bu len nexé nit du sédé bopam mais bu len nexé ngeen wër kolobaan yëpp dinañ wax kan moy Cheikh Cissé parce que man ma bok ak mom nday ak baay Euh, si mal placé pour ma seede ko mais wër leen ngeen dugg si kër yi ngeen xam kan mooy si Cissé xale la boo xamante ne nii même kër yi ñu noo am na benn femme boo xamante ni sëy na fi ba am fi ñeenti doom xamul xale bi ndax tellement que du génn fajar lay liggéey guddi lay waaj. man bu ma ñëwee si koñ bi yàggu ma ne mais ñu ñu yóbbu noonu sax cinq personnes ñu yóbbu booy ñoo xamante ne daal ñu baax lañu seen yoon nekkul si affaire bi manifestation guddi bi affaire bi am si ëllëg si ñoo newoon fii dem fubali dimanche bi ñoo toog si buntu koñ bi boutique ba fii nii benam boy bi bu dekk ci si kër yi dele siise mu ne day dem jëndi reer yaa gis parce que dekk bi woor day dem teud jëndi reer bobu ñu ñëw police ñu ko yaa tudd dele mu ne wa ñu tiyé ko yobbu ko xam nga yoolom nekku ci bokul ci manifestation dik ñoo jàpp suñuy xalé sama rakka ngi si ku ma bokkal ak bay amna ku ñuy wax sidat Mané euh, ku ñuy wax euh, Mamadou Keita ya ngi dégg ku ñuy wax Boubacar Diallo ku ñuy wax Alaaji Matar Diaw ban leen dekk te ñom ñep ño bokku ci même angle bu ñuy tok di waxtaan ñu jàpp Sidaat Mané bi ñu ko jàppee dañ ko torturé gravement dañ ko wékk comme xar ak tànk yi yaa ngi déglu bopp bi nekk ci suuf waa dig ñoo ko def di ko torturé door nañ ko lu mat presque quatre heures de temps alors bi dóor yi méttee ba métti ñu muur ko alors que sur le cité turu booy yi comprendre nga parce que boobu dañ ko ni il faut nga wax. sama rakk bi dafa génn di dem yoonam ñu jàpp ko te deful waxul ay innocent lañ xamuñu dara. tey leen di leen dóor di leen toroxal bëgg leen teg lo xam dafa metti mu la fa jugee dem na fa dem na fa visite quoi bon bama ma franchement limu mu leen fekkee neexul neexul ma quoi parce que même kenn ki mu ne da ko dóor ba instant mi ndigli mu ngi am problème ah, touché na ma metti na ma ci ki xamni xam ne innocent la yëgul tinul fekkeewul te pourtant le samedi dama xey ñëw fi di job mu ne démb mbaa mbaa fekkeew affaire ma ko non man demb affaire bi may am mit na la ma fekk téléphone sax lan ma ko jàllale mu ne ma aw ah, mu ne ma waaw mu ne ma affaire jaru génn ma xëy lundi ñu ne ma jàpp na ko affaire bi jaaxal ma te moom yëgul fekkee utinu jabaram sax nangul bàyyi mu génn si néeg xam nga démb ba ma demee foofu digg visite mooy doon ko dóor ba ndigg li am problème mais loolu loolu xam nga loolu loolu du yoon ci ci ci innocent jàpp leen di leen tur torturer mais nan nan libéré nan libéré nan libéré waa Colobane. wax dëgg yàlla métti nañ parce que suñu xale yi fii yëpp ñu ngi leen jàpp di leen maltraité di leen torturer defuñu waxuñu ñëw nañu daal fekk xale yi ku si nekk ñii dañ leen fekk ñuy liggéey.

mais tamit ñun kenn ëppale wuñ ci ñun ñi nga xam ni ñoo ko jege ndax comme bu musiba amee suñ kaw lay dal kon kenn ëppale wuñ ci ñun dañuy ñaan euh, ci autorité yi bu fekkee dinañ mën a affaire bi parfois ñu koy yóbbu feneen. bu ñu bëggee manifester nañ dem ci stade stade yi gën a yaatu yoon kenn du toj oto jàmbur kenn du yàqal kenn mais tey jii bu ñu demee def ko ci koñ bi ah ñu sànni benn grenade ñu daw dajji bikutu jàmbur maa ñu toj oto jàmbur fu ñu ko teg. manifester yi dañu bëgg bu bayante bu muy am bu mu amee fii si monument yi

te Colobane xam nga tur bi moo nekk tur boo xam dafa garaaw mbéyum deful dañ naan ñoom ñoo def te ñun boo ñu xoolee ñun ay enfant nature de Colobane lan dañ bëgg suñu bopp gëm suñu quartier comprendre am na loo xam ne fii li fi xew yëpp du waa Colobane. nous on a rien fait pour mériter ça bon ce n'est pas de notre faute d'habiter à Colobane donc quand ils se manifestent il y en a marre que ce soit euh, M23 ils n'ont qu'à trouver un autre milieu et nous laisser tranquilles. parce que eux.

mu nek suñu président dem na ba réew mu melni mu mel na taxaw lijjanti ko te doomu Colobane yi nga xamne ñom lañu japp ñu jàpp tëj leen te defuñu waxuñu lu dul nekk ay kat nek ay xalé yo xamne ne ñoo doon dimbali seen yaay mu libéré leen bàyyi leen ñu delu seen kër ñi mu japp 5 personnes yi nek Colobane kenn nekku ci bandi il y a deux semaines def nañ conférence de presse fii ak journalistes yi médias yi loolu yeen war ngeen nek au courant pour population Colobane ñepp ñëpp quoi parce que tamit dañ sonn xam nga dañ fi nekk ak suñuy raxal suñuy frère xëy na man conscience muy am mun a toog sama kër wala def yenn yi sama yeneen petit frère yi mënuñu ko parce que ay xale lan lu lu ne rël ñoom ñëpp génn te dafa metti quoi te manifestation bu am lu xew gars yi dañuy dugg biir Colobane bu dee dañ koy teg fi à chaque fois ragal naa ni bés a ngi ñëw euh, ñi fi ñëw di manifester wu bu boobaa du ñu jàmmarloo ak policiers yi dinañ mujjee jàmmarloo ak population koloban parce que d'ailleurs ñun commencé nañ taxawal benn mouvement boo xam ni mooy ko ni manifestation bi am monument que ñun neexuñu ànduñu ci parce que tamit ñun rek lañuy ñuy lor ñun lañuy ñuy dóor ñun la ñuy saaga ñun la ñuy sànni ñun la san sànni xeer bu ñu paree ñu yóbbu ñu police loolu xam nga neexul. au niveau de Colabane ici euh, il y a une semaine de cela on avait fait des porte à porte pour sensibiliser la population pour euh, euh vraiment pour pour faire une résistance par rapport à ça. Nous mobiliser place de l'Obélisque ñun lancé nañ leen message parce que def na point de presse au niveau de Walfajiri, TFM et les autres nous, nga ñoo ñëw nañ ñoom de presse. Ils def na point de presse vendredi ba passé ñun waa Colobane nañ jël suñu matuwaay fii kenn dafa defeeti manifestation. ils ne sont pas plus sénégalais que nous ils ne sont pas plus dakarois que nous ils ne sont pas plus humains que nous bon pourquoi quand ils font leur manifestation à chaque fois c'est nous qui subissons les conséquences. Nous fi ñëw ñëpp dañuy bàyyi ont yaay leur mère, kër bàyyi seen papa yi seen kër bàyyi seen i rakk fi mais nous, si nous sommes fi ñoom dañuy fekk suñu famille yëpp ci biir kër yi comprendre nga après si on xoolee ñoom mun na daw ñibbi ñun amuñu fu ñu jëm fii leen ñun leen Colobane ici au niveau de Colobane franchement parler on en a marre on en a marre de Yana, marre on en a marre du MPL, on en a marre de de de tout ce qui se passe ici. Donc, euh, qu'il qu'ils le sachent. Ce qui s'est passé la fois passée, l'autre jour, si ça se reproduit, il y aura une catastrophe ici, au niveau de Colabane. C'est ça, c'est le message qu'on s'est fait passer, nous, jeunes de Colabane. Voilà, pour vraiment, nous voulons qu'ils nous laissent en paix. Nous voulons qu'ils organisent leurs manifestations ailleurs. Nous voulons, quand les policiers les poursuivent, qu'ils ne rentrent plus dans nos maisons parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués.